may loolu doomu Diofior la maam Faye yàlla Diofior ndeysaan a sika bale Mbour Tefes ci moo nekkoon sika bay Mbour Tefes maam Faye borom Diofior ndeysaan bu bëree nga kontaan xale bu mun bëree la kii ordinateur la ci lamb bala muy gën a bëri sax nga jéego dafa taxaw pour bégal boppam kon waa Diofior ndaw la mun naa mane entrain entraîne Njanjaan Fatick bu Lul sesen ki mooy Bada Lul wala Njanjaan Fatick e Bada wala Njanjaan Njanjaan Fatick xëy na sobalole njonnelul seseen